maraxi wala ak ñu ci soobu comme ni ñu ko defee dañ leen di rek euh, jukkil li ci nara euh, gën a fës bokk na ci Ousmane Sonko mi soloon dàllam dem sànq sa marché Colobane bu Ndakaaru mbooloo mu takku nag moo ko fa teeru moom élimaanu jëwriñ yi demoon ngir rek massawu ji marchand ambulant nga xam ne dañ leen yëkkati ci opération de déguerpissement yéen doon amal foofee sa Colobane mu leen di nag massawu ci ay kàddoom moom élimaanu jëwriñ yi niñ leen yëkkatee jaarul yoon ndax waroon nañ leen gunge manaam boole si ay mesures d'accompagnement moom daal taxaw na fas yéene jàppale yooyu les marchands ambulants sa boor ba moom ambulant républicain yi di marchand yi nga xam ne ñoom ñoo farek ak APR rafetlu wu ñu benn yoon doxalinu élimaanu jëwriñ yi ndax ne nañ daal jamono gi tembe Ousmane Sonko dafa taxaw ngir rek bëgg a jaxase marchand ambulant yi ak kilifa yi jiite gox yi ak goxaani ay fan gannaaw ba ñu dindee yenn ci boulon maanaam vis ya nga xam ne moo tee pont Lobatt Fall bu Pikine yëf yi nag tàmbali nañ ko di defaraat ñay jaar sa boobule pont rafetlu wuñ ko benn yoon muy jëf joo xam ne ni ay samba booy ñoo ko fa amal ba tax rek ñu sàkku ci kilifa yi ñu fexe rek ba yokk kaaraange gi sa wër pont boobee nekk sa diwaanu Pikine daañu jeexale ak tàggat yaram lutte avec euh, frappe ak ñetti affiche yu mag yi nga xam ne moo am tey jii ci dibeer gi yemook fanweeri fan ci weeru juin atum 2024 sa arène nationale lay xewee ama bal Baldé di laale ak Gris Bordeaux Ada Fass euh, di tase ak Guy gi Zos di rek jàmmaloo ak Lise njaago mu di ay combat yoo xam ne nag kenn tegu ko ci télévision yi en ligne maanaam internet donc lañ ko mën a seetaanee mbokk yi li moo gën a fës ci bopp jotaayu xibaaru maraxi neskis ñu ñëw ak yéen ci gi ni ma leen ko junjee léegi ci boppu xibaar yi Ousmane Sonko Elimaanu jëwriñu Sénégal moo nga woon nag euh, sànq si ngoon na sa marché Colobane mu soloon dàllam rek dem seeti marchand ambulant ya nga xam ne dañ leen yëkkati sa boobule marché nekk fii si Ndakaaru Ousmane Sonko demoon yeggee leen ab message maanaam kàdd yoo xam ne nee na dafa tukkee si njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay gannaaw nag bañ yëkkatee yooyu les marchands ambulants moom Elimaanu jëwriñ yi mu ngi leen di massawu si gis-gisam nag anam gi ñu defee yooyu la opération dëppoowul ak yoon ndax yooyee waroon nañ leen rek euh, gunge euh, boole si ay mesures d'accompagnement euh, jamono gi tembe nag Ousmane Sonko nee na taxaw na fas yéene rek jàppale yooyu le marchand ambulant muy sàkku rek si askan wi maanaam population beeg maire yi ñu rek am yërmande si yooyu le marchand ambulant du ñàkk dinañ si ñëw si nu mu gën a yaatoo si suñu yeneen i jotaay xibaar ak sañu ndaw ya nga xam ne ñoo nekkoon foofe sa Colobane ak Elimaanu jëwriñ yi di Ousmane Sonko. marchand ambulant républicain di jaaykat yi nga xam ne ñoom ñoo fare si APR ñoom nag euh, àddunañ jëmmale si euh, doxantu googee nga xam ne ilimaanu jëwriñ yi Ousmane Sonko amal naka tey ji si dibéer gi foofee sa marché Colobane doon wax rek si lu soxal opération de déguerpissement yi ñuy amal fi si Ndakaaru ak yeneen i gox si biir réew mi yooyu les ambulant nag bokk si APR ñoom rafetlu wuñu benn yoon doxalinu ilimaanu jëwriñ ji ndax nee nañ daal li muy def jamono gi dara ndax yooyu la opération de déguerpissement ñuy amal ngir rek xàll yooni kaar golf sud Parcelles Assainies ak yeneen i diwaan fii si ndakaaru yàqal marchand ambulant yi ay bagages yu bëree bëri lu ni mel daal euh, ambulant yooyee di ay républicain rafetlu wuñu ko benn yoon mu mel ni nag euh, réeroo am na si lu soxal kàddu yi nga xam ne élimaanu jëwriñ yi Ousmane Sonko yëkkati na ko euh, mel ni ku naan daal nguur gi taxewul laalewul si opération de déguerpissement yooye ñuy wëyal di amal fii si Ndakaaru lu ni mel nag euh, jaaxal nañu bëri ndax ay fan yi ñu génn nekkoon sax juróom-ñaari fan si weeru mee gi ñu weesu jëwriñ ji gàll wàllu biir réew mi di ministère de l'intérieur bindoon na ab circulaire maanaam ab bataaxal goo xam ne def ko jébbal kilifa yi jiite gox ya goxaani la mu leen sa sant nag du lenn lu dul ñu amal ay opération de des désencombrement ngir rek euh, xàll yoon yi fii si ndakaaru yëkkati bépp jaaykat boo xam ne dafa lal foo xam ne si yoon bi la ak it lal foo xam ne dafa romb lool marché yi nekk fii si ndakaaru yëfi daal jamono gi upp na ràpp boppu askan wi dañuy lu leeral yi ak Pape jaare ko ci ab post ci page Facebook am Ousmane Sonko di wax ni xamul lan moo sabab opération de désencombrement yi nga xam ni ñu ngi koy amal ci Ndakaaru ay fan a ngi nii nemmeeku nañ ay euh, déguerpissement ak désencombrement fépp ci réew mi te ñi ko waral di ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy collectivité territoriales yi man mi nag en tant que premier ministre dina dem kolobaan tey jilee ci dimanche bi ngir rek daal di dem euh, jàllale li nga xamante ne ni moom mooy message wu président de la république. waaye mu mel ni premier ministre bi de fàtte na wala sax xamul bataaxal bi nga xam ni daal na tukkee ci ministre de l' intérieur am juróom-ñaari fan ci weeru mai atum 2024 bii ñu weesu moom Jean Baptiste Tine doon sàkku ci gouverneur yi ñu jox gëdd mbir moomee mu jàppoon ni dafay indi ay accident ak yu ni mel ci tali yi loolee taxoon mu jox ndigal président de conseil départementaux yi naka noonu maire yi ñu amal ay activités sensibilisation jëm ci loolee waaye itam daal di sumb. ay opération de désencombrement naka noonu daal di koy topp waaye opération yooyu juróon coow commerçant yi ak marchand ambulant yi doon ko nakarlu mu mel ni looloo tax nguur gi deltu ci ginnaaw Ousmane Sonko élimaanu jëwriñ ji ba mu noppee sa marché Colobane dem na it euh, ba sa plage bu Anse Bernard ni ki ni mu ko waxee woon ni ki dem ba si poste boo xam ne daf ko fësal jaarale ko rek si xarale yu yeesi moom élimaanu jëwriñ yi nag ba mu yeggee foofe sa Anse Bernard la muy euh, ŋàññ rek euh, mooy nee na caqat caqatee gi ñuy wéy rek caqat caqatee suuf sa nekk sa peggub géej ga te nee na ñiy def lu ni mel du ñenn ñu dul nguur gi fi nekkoon di Macky Sall ak ñi mu àndal taxaw nañu nag fas yéene jëlaat boobule suuf ci seen loxo ñu teewlu kàddu élimaanu jëwriñ yi di Ousmane Sonko. bërëb bi ko gis ak ñi ñu ci fekk lee may gis ne leen rafet na lool ci jamono tàngoor bi ndakaaru lii rek lañu am mun a ñëw xamaa nañ ñëpp amuñu doole boo xam ne mun nañ taal clim journée bi yëpp bu ñëwee nag toog gis ni bërëb bi yëpp nag lu ko dooree fële ci gannaaw man fu mu sësee bi ko dooree ci kaw tali bi ba ci suuf dagg nañ ko def ko lotissement ba jox ko ay nit li muy firndeel mooy buñ ci jógul fileeg ay fan kenn dootul mun am accès ci bërëb bi fii nii ñu ngi ko def novembre novembre 2023 xanaa ku yor nguur di dagg di dagg di dagg ñu naa la li ngay dagg ëpp na ba mu des ñaari weer wala ñetti weer nga war a dem rawati nag bërëb bu mel nii nga war a maanu nag ba ko fa ñii ñu jox leen cinq mille mètres carrés ñii trois mille mètres carrés cinq cent mètres carrés ak yu mel noonu muy lu doy waar ndax fii en principe ci domaine public maritime bi la bokk domaine public maritime nag bul laal la tudd même procédure yi nga koy jaar pour déclasser ko sax compliqué na compliqué boo xam ne waroo ko mën a laal lañ ci bëgg a wax ak sénégalais yi mooy ni ñu yore woon Sénégal ñaaw na ko ku ñaaw yëpp la ñu diglanteeg sénégalais yi mooy Sénégal dañ ko delloo ci loxo sénégalais yi. ñu def euh, taxaw seetlu si suukar bi nga xam ne tàmbali na di manqué bu baax a baax fii si Ndakaaru bëri na ay boutique yoo xam ne géej nañoo jaay suukar mu di bu mokk bi wala bu bekk bi gisatuñu benn yëfi nag tàmbalee di jur rek euh, ay jafe-jafe si njaboot gi kenn xamul daal lu ko waral waaye li am ba am mooy yëfi yee moo nag lool dogal gi nga xam ne nguur gi da ko jël wàññi njëgu suukar bi dañuy teelu leeral yeeg Moussa Mané. Penda Dioum moom jaaykatu ndékki bis bu ne lu muy jënd ci suukar dafa daal di bari ngir rekk mën a jaay kafe mbile ay fan a ngi nii ci ginnaaw jafe woon na ko ngir rekk mu mën a gis sa suukar. waaw nemmeeku woon naa ko moom suukar moom rek toog na ay fan yoo xam ne danga koy wër pour am suukar boo jaayee. bokk na ci li ko waral di njëg yi nga xamante ne nii dañ koo daal di wàññi am ñu jàpp ni boutique yi dañuy nëbbu suukar bi. hausse de prix bu amee rek wala baisse de prix da nga koy yëg ndax dañ bu dee baisse de prix moom dañ lay manqué hausse de prix moom si saa si dañuy mais bu dee baisse de prix moom dañuy day mel ni dañ koy bañ a wàññi wala dañuy jël suukar bi denc ko pour peut-être peut-être sonal tuuti. les prix nekkuñu benn kii daf lay jaay prix bi nga dem si boutique bi mu jaay le prix bi leur seen prix nekkul stable. bile boutiquier moom naam sax ñàkkul suukar teg si 600 francs lay daal di jaayee kilo bi wante rek mbir yi métti na ci booram bu baax a baax. maa ngi jënd 28 805 laa jënd saak bi soo si fayee paas yi nga def si nga jël sa mbuus def ko si parce que pertement lay doon doo si am dërëm sax yenn saa sax pees naa fi sax benn saak suukar manqué un kilo manqué un kilo suukar yenn saa saak bi day manqué. wàññi yu ñu wàññi yenn njëg yi loole nag tàmbali nañ ko ay fan a ngi nii ci ginnaaw suukar gi moom kilo gi di jaar téeméer téeméer ak ñaar fukk Moussa Mané si wàll googee sax la ñuy des ba tey mu di njëgu dund gi nga xam ne nguur gi jël nay dogal yu yees wàññi leen mu di suukar bi diwliñ beeg ceeb beeg yeneen ak yeneen sa kër Massar moom seetlu gi moo di ni jaaykat yu bëri dëppooguñu ak li nga xam ne moom la kilifa yi santaane loolee waral dal askan wi di sàkku si kilifa yi jiite réew Sénégal ñu jóg si mbir mi ak i pexe ñoom jàpp nañu daal bu ñu bëggee moom sañu bopp si wàllu dund lépp yomb ba a jafe si njaboot yi faaw rek ñu gën a jublu si soxal wàllu mbay mi ndogal yu ñu jël ngir ñu respecter wàññite prix yi dafa mel ni fii ci Kër Massar ñu bari ci commerçant yi respecté guñ ko gérant boutique bi fu mu nekk ni mu ngi jaay kilo sucre six cent cinquante mu ci indi ay explication non ñun li ñuy jënd mais si beneen arrivage bu ñëwaatee moom day fekk li ma jënd jeex après ma jëndaat su ma jëndee mën naa jaay six ndaw si moom di jaaykat nee na fu mu nekk ni gisul benn wàññite lu jëm ci wàllu diwlin sucre wante li nga xamante ne moo di mburu mi am na wàññite. ah wàññeekuñu de mburu mi daal wàññi nañ ko waaye ceeb ak diwlin ak yooyu ñun de gisaguñ ci ci suñu bopp. naam wàññi njëg yi lu ñu rafetlu la waaye ngir mu am. durabilité nguur gi dafa war a miser ci li nga xamante ne mooy mbay mi pour mu atteindre la souveraineté alimentaire mu nekk xalaatu sëñ bi. mais man en tant que doomu baykat dëkk fu ñuy wax bokkal euh, engrais bi ñuy wax buñ ko buñ ko wàññee. nee ñu wàññi nañ ko nag buñ ko nit ñi buñ ko baykat di jotee bañ subventionné ko carrément ba ñëpp jot ko autosuffisance alimentaire am nit ñi di bay nawet ak noor. loolu moo mën a soqali réew. mu mel ni de mesures yi nga xamante ne eh, dañ ko tëral ngir ñu respecte wàññite njëg yi dafa mel ni fu mu nekk nii jurugul ay résultats yu ñu doon xaar gannaaw une semaine bi nga xamante ne mesures yi jël nañ ko. ni ki euh, Kër Massar ak euh, fii si Ndakaaru sa Diourbel it euh, tàmbali nañu jëfee njëg yu yees yi gannaaw ba ñu amalee seen conseil régional de la consommation kilifa yi sekk mbir mi toog waxtaan ba dëppoo si ay kaddu waaye nag ñu jiite boutique ya foofee sa diwaanu Diourbel nee nañ daal gisuñu seen bopp sanam gi nga xamee ni noonu la kilifa yi tëddalee njëgi yu yees yi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 presque jur woon ñu ko am commerçant kaay leen fekke ma def li ma bëgg a def boo xoolee ministre bi keroog Dakar ñëw leen fekke ma def li ma bëgg a def la commerçant la fa wax ak la fa bàyyi lépp amu ci benn loo xam ne damaa ne na ko ñu fekk ku xool lu mel ni ceeb ñu defal la quatre cent fan ngay jëlee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 jubbanti yorinu réew mi loolee waral nag gouvernement bi jaarale ko nag si ki leen jiite di Ousmane Sonko moom Ousmane Sonko si boppam moo bind ab circulaire jébbal ko rek ñiy jiite ministère yeeg direction publique yi fii si réewu Sénégal la muy sàkku daal si ñoom mooy euh, ñu indi ay leeral jébbal ko maanaam daal contrat yi nga xam ne xaatim nañu ko si ñetti at yi ñu weesu ñu war a nag def lu ñu mel fileek rek benn fan si weeru juillet atum 2024 sàkku teef bi du leen la dul fexe rek ba gën a rafetal indi ay leeral ba lépp leer nañ si anam yi nga xamee ne noonee la ñuy liggéeyee si biir fonction publique bu réewu Sénégal wàññi it bu baax a baax dépensu état bi. ci ab note circulaire bu ñu bind urgent élimaanu jëwriñ bii di Ousmane Sonko mu ngi sàkk ci jëwriñ yi ak secrétaire d'État yi ñu dal di koy jébbal gën kaa sori benn fan ci weeru sulet 2024 ay xibaar yi koy càmbaral yëngu-yëngu ci wàllu koom ci yooyu la département ak seeni agence yooyu la xibaar bokk na ca dal di def inventaire contrat ak convention yi ministère bu nekk rek war naa indi ab relevé boo xam ne dafay fësal accord yi nga xam ne signé nañ ko moo xam ak cabinet d'expertise moo xam ñu nekk juridique wala comptable wala beneen xeet bu mënti doon dal di def tamit inventaire recrutement yi ab rapport détaillé lay xaar ci ay embauche yi nga xam ne def nañ ko ci diirub ñetti at yu weesu bokk na ci 2022 2023 ak 2024 loolee tamit dafay dikk ci contrat yi nga xam ne à indéterminé la wala à durée déterminée ñoom ministère yooyu itam dañuy xaar ci ñoom ñu indi ay contrat prestation publicitaire yi nga xam ne signé nañ ko mu dox ci seen digganteeg daluwaay bu mu mënti doon Ousmane ko tamit dal di nay sàkku ci membre yi ne ci bile gouvernement ñu dal di tegandi ci suuf bépp convention ba ñu noppi ci bile liggéey li tax a jóg bile doxalin nag mooy fexe ba rationaliser dépense yi nga xam ne état da koy amal bu ko defee ñu mën a am résultat yi ñuy xaar moom njiitub gouvernement bi nag li mu xam xamle mooy ne jot na ñu dal di amal yorin bu sell ci finance publique yi moom Ousmane Sonko nag dal di nay sàkku yooyu le xibaar ñu koy jox mu dal di wér te wóor bu ko defee rek ñu dal di mën a jëmmal li nga xam ne moom mooy sàkkuteefam ñu euh, tàbbi ci reportage yu bés bi junj naa leen ko ci boppu xibaar yi ni ngeen ko xamee nag lu doy waar moo xew sa diwaanu Pikine fan yi ñu génn sa pont Lobat Fall ak rek ay sambabu yoo xam ne ni euh, dañoo dem sàcc boulon maanaam vise yi nga xam ne mooy tee boobule pont mu di nag lu doy waax jamono gi may waxee yéen kilifa yi tàmbaliwaat nañu di defar euh, yooyu le boulon maanaam dal yi ñu dindi woon ñoo ngi fay def yeneen bi la yoon sax yamuñu rek si vis yooyu le boulon dañ ko suude ba kenn dootu ko rek mën a buddi ña nga xam ne ñooy jaax sa boobule pont li ñu sàkku si kilifa yi mooy ñu fexe rek ba yokk kaaraange gi sa boobule bërëb. image yi daal na wër réseaux sociaux yëpp dañuy wone rekk ab ñaaw teef bi nga xamante ne daal dinañ ko amal foofee ca pont L'aAbache Fall bu pikin ci fan yu mujj ay samba booy ñoo daal di ñëw dindi boulon yi nga xamante ne ñoom ñoo doon téye bile pont ñu bëri nag. xam jéeye bi nga xamante ne li ni mel mën na koo jox ñi koy ñaawlu te nag ñu xam ne ne que lii ab xeewaande kese la. dina lor tamit ay bakkan yu bëri tamit da war nañ sóoraale lool de waroo xool la neex tamit nit ki tamit bay def luy lor doomu aadama. kuy def lii baadoolo yi fi fanaan ñooy def lii. manque de responsabilité la ci ñi koy def maanaam parce que nit ki boo xamee li la war sa dëkk. maanaam am na yenn yoo xam ne du doo doo ko def. boo ko deseeree dem jaay ko feeraay ay téeméer lañ ci war a 1000 francs xam nga ji nag ñoo ngi ci defaraat gi boulon yu bëri daaj nañ leen delloo seeni place ñu daaj leen suudee ba ñu dëgër ngir rekk li ni mel bañ fi amaat. parce que bu ñu ko suuree léegi nga xam ne kenn du ko mën a wala balaa nga kaa diviser di nga si def loo xamante ni waa koñ bi dinañ ko dégg incha allah bu ñu ko defaraatee nii moom macha allah du benn problème ñu ngi ñu ci fan yi incha allah si suuf bi les nag ñu bëri dañ fi ñëw ngir dallu waaye nag jakartamaan yi daal fi def seeni garage ñoom ñëpp nag seen kàddu benn la maanaam dañoo war a gën a yokk sécurité bi. sécurité waaw sécurité dafa war a doy nag waaw bu baax état bi dafa war a jàpp sécurité bi. gën a war mooy maanaam ñu ut ay caméra yoo xam ne maanaam ñu nekk ci suuf pont bi képp ku fi mënti nekk maanaam ñu lay gis lu fu waaye di def ñu mën koo xam. gars yi waroon a jël ay agent di leen placer ci pont yi pont bu ne ñu teg fa ñaari agent ba ñetti agent ñu saytu affaire boobu noonu kuñ ci gis ngay dindi wii si ñu yóbbu la ci police wala gendarmerie. ca wàllam Ageroute daal di xam ne si communiqué bu mu publier si bile 26 juin que dinañ def seen kéemtalaay kàttan ngir rek appliquer loi ni mu waxee ba ñu mën a punir ñi nga xamante ne ñoom ñoo def bile ñaawteef. ba tey si lu soxal xibaaru uh, marax dañu àddu jëmale si lu